may wax seen gouvernement bi parce que vous êtes comptable seen gouvernement bi dafa exploser le le le plafond de la la de la dette euh, et Covid bi ñëw euh, ñu yokk ci et puis tey am na bari na projet projets étatiques yoo xam ne euh, le gouvernement n'a pas les fonds euh, mënatuñu lever yenn xaalis yi dañuy bëre ak le Fonds monétaire international et la banque et la banque mondiale. Alors, vous avez toujours soutenu que le Sénégal s'endette bien, qu'il n'y a pas de péril en la en la en la demeure yow boo ñëwee da ngay continuer ci même rythme d'endettement bi foog nga ne débat endettement waruñu ko poser parce que si si si si gouvernement Macky Sall loolu ngeen ma sa wax. waaw mais boo boo bu waa gouvernement président Macky Sall ñëwee nga laaj leen ko nekkuma gouvernement président Macky Sall opposition laa nekk F24 laa nekk maintenant li ma nar a def moom danaa la ci tontu euh, sax c'est pas un défaut ça dépend de lan ngay def ci xaalis bi loolu mooy boo xoolee dëkk bi nga xam ne moo gën a endetté au monde États-Unis la tudd ñoo ëpp dette ñëpp mais dette bu utile lay doon euh, man ci wàllu li nga xam ne moom laa gis euh, mooy d'abord fexe ba euh, ñu am plus de capacité financière noo koy amee mooy d'abord créer plus d'entreprises de petites et de moyennes entreprises par la stratégie de l'industrialisation da ngay da ngay créer richesse réew boo bëggee am ressource da ngay créer richesse nooy créer ay richesse mais c'est par la production nous on ne produit pas les pays africains ne produisent pas ñi ci am chance mooy ñi am ay mines ak ñi am pétrole le pays qui commence à se produire à à à qui n'a pas de richesse naturelle mais qui qui est passé de pays pauvre à pays à revenu intermédiaire mënoo ko jël comme exemple parce que dafa tuuti cap mais da ngay dem ba ay Botswana ak yu ni mel donc il faut ñu produire bu ñuy produire ci sa la TV sa TVA yi di yokk ci la sa richesse di yokk ci la possibilité état di yokk man déjà noonu laa ko gisee euh, il va falloir faire le point de la dette voir quel est niveau de solde